ici dans le village de Bombay, accompagné par le président de l'ANAMRA, l'Association nationale des anciens militaires et retraités des armées, dans, ses, dans son volet agricole, euh, pour vous montrer ses activités qu'elle a menées ici à Bombay, où nous avons cultivé de l'arachide et, et, des haricots. Euh, nous voulons vous montrer aujourd'hui tout va bien ici. Donc euh, la famille militaire s'est retrouvée ici, à Bombay, où il y a une grande partie de la famille militaire donc, euh, qui sont là avec leurs enfants pour euh, récolter ce que nous avons cultivé ici. C'est de cela que nous avons voulu vous montrer par la voix du président national, M. Alioune Tchouk, qui gère l'ANAMRA depuis maintenant bientôt deux ans, et qui fait tous ses efforts, qui mène tous ses efforts pour arriver à bon port. Donc, en gros, nous vous montrons aujourd'hui ce périmètre cultivable que nous avons cultivé depuis le début du l'hivernage. Donc, voilà, monsieur, ce que nous avons voulu vous montrer aujourd'hui. mais en attendant, je vais vous passer le président de l'ANAMRA pour faire un peu le point de presse avec, les membres. waaw waaw tey ñu ngi ci dëkk bi ñuy wax Bombay Bombay boo xam ne dëkk une partie euh, ci arme euh, ci association nationale des anciens militaires ak retraités des armées fii la basé wu am fi membre yu bëree bëree bëree yoo xam ne vraiment nawet bi bu mu tàmbalee ba léegi ñu ngi fii di béy gerte ak euh, haricot joxe na ndax aussi soo gisee manque de pluie bi tax na mais alhamdulilah ñu ngi sant yàlla parce que affaire bi joxe na bu baax a baax waaw bien que des na tuuti. ndax euh, xam nga gerte gi moom boo boo amul gerte doom bi di nga am ngooñ bi donc euh, on a on a les à la fois donc tey dañu ànd ak président national pour won leen li ñu def fii ci dëkk bi ñuy wax Bombay ci wetu Thiès donc euh, voilà en gros li ñu leen bëggoon woon tey président dina ñëw nag sandi ay kaddu wax leen tuuti ci li ñu def fii ci Anamra mu ngi def lépp ci kattan kata pour pour vraiment réussir ci sa mission de de mener à bon port la situation donc euh, monsieur le président si vous permettez mën nga ñëw sànni fi kàddu waaw pour que ñi ñuy xool li ñu def fi ci Bombay. Oh, léegi maa leen di nuyu di leen sant Thioub comme ni ko Koli waxee vraiment depuis deux ans ñu yéen ci affaire agriculture ren nag ah gis nga nawet bi ni mu ni mu ni mu demee. xaar nañ ay taw baax na parce que liñ ci doon séentu xëy na bu fekkee amuñu ko 100 pour cent it am nañ bon 60 pour cent parce que dina am tuuti gerte mais même bu fekkee gerte amul moom ngooñ dina am li ma ciy dolli rek mooy ah di dolli sant yàlla ah di ñaan yàlla daal bu déwee ne ah mu gën ne merci waaw alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñi nga xamee ni ñi ngi ñuy seetaan fas leen wax it ñun sunu tur Alioune Thioub la waaye li tax ñu taxaw fii tey jii di wax dañu jiite benn kuréel goo xamee ni dañ leen tuddee ANAMRA ANAMRA nag mooy kuréelu anciens militaires yi ak retraités des armées ñooy ñan ñooy seeni soxna ñoom ñi defoon armée ak ndaw ñi nga xamee ni ñëw nañu. ak ñi nga xamee ni seen borom kër jiitu nañoo ak seen njaboot loolee nag yëngu bi ñu ci yëngu mooy fexe ba kenn ku ci nekk ci ñoom ak ci ñun am loo xamee ni it di ko dolli ko ci sa taxawaay ci sa dund ñuy ànd nag ànd boo xamee ne wax dëgg yàlla kenn dafay liggéeyal ñëpp rek waaye ñëpp mun cee jariñu loolu mooy ANAMRA bu ko defee tey jii nag dañu ñëwoon ci tool yi nga xamee ni it yaakaar nañ ni mbay bokk na ci liy soqali réew ak kër ak dëkk waaye nag ñu am ci taxawaay boo xamee ni it kilifa yi dañu amoon xalaat bu ñu nasoon ba jël benn kuréel bu ñu tuddee ARS. dinañu ci mun a wax ni bu doon téeméeri poñ la it juróom benn fukki yi daanaka jàpp nañ ni daal war nañ ko cee am. mboq mi nag yàlla dogal na moom wax dëgg yàlla doxul ndax waxtu mu ñëwee ak taw ya mu dajeel ak yéex a ji bi tax na fa mu fa ñu ko doon xalaat ñëwul waaye moo tax it waaye tamit mbay moo demee noonu kon nag sunu taxawaay tey jii daal dañ doon wëraat tool yi di xool deq bi di ko ànd ak njaboot gi di ñaan it yàlla dolli sutura di santaat kilifa yi nga xamee ni it ñoo ñu jàppale ba ñu mun a ak ci fii te di leen ñaanal it yàlla dolli seen xéwal ñi ngi sant waa dëkk bi di sant mbokk yi nga xamee ni ñoom la ñu bokkal liggéey bi di anciens militaires yi di sant it kuréel gi nga xamee ni it moom la ñuy dajeel ci saa su nekk bu ñu ñëwee te seeni xel ak seen xol ak seeni xalaat duñ ñu bàyyi ngir li ñu bugg def ñu jàppale ñu ci ci xel ak ci xalaat ak ci jëf yal yàlla defal ñu jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah